jërëjëf salaamaaleykum amee internet du jëli bi amoon mbégte ak contentement bu baax a baax a baax jàkkaarloo waat ak yéen nuyu nañ kilifa diine nuyu kilifa nuyu nañ kilifa diine nuyu njabootu làmb yëpp dinañ jëm ba ci hôpital dafa fëgg seen bopp waaye nee na duñ fàtte ñi nga xamante ne ñoo nekk ci prison yi di leen ñaanal bu baax a baax a baax ñoom ñëpp ñu génn fa leen fa dugaloon ñu bañ cee delluwaat di ñaanal réew mi jàmm di ko delluwaat di ko waxaat bu baax a baax a baax di rek jàmm ko bañ na woon ñëpp dañ ko tuddee pays de la teranga réewum teranga la ñu ngi ñaan eh, ngeen jàppali ñu rek dimbali ñu ngir yàlla président Macky Sall yow mi nga xamante ni yow la fi yàlla teg nga déglu jeunesse fi nga xamante ne fa lañ nekk particulièrement ki nga xamante ne mooy Alpha Ly suñu grand suñu xarit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla na yéen bi oyof waaye tey ñu ngi fi nga xamante ne mooy fii fan la avenir eh, fii mooy zone 1 seet fi benn champion muy avenir waaye nag jàmbaar la ci biir yi gis ngeen deux sorties yi mu mujjee def sorties yu doy waar mbir nag dañ koy daaw xaw ma lan lañ koy dawee suñ ko joxee mu nuyoo pare dinañ tàmbali li nga xamante ne mooy waxtaan avenir nuyu naa. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mot maa lay fay bu baax. di la siyaar waa di bëggee sama waa koñ di siyaar mafia CFA bi yëpp di bëggee waa Ndaarian di nuyu waa pétrole bi di bëggee sama boy yëpp siyaar képp kuy yeewoo si koñ bi rek di bëggee ñëpp waa di la nuyu di la dalal jàmm quoi ah. loolu lan moo ci làmb. waaw làmb mooy loolu lamb moom suñu ñu suñu fierté la quoi làmb moom ñun dañ koo bëgg parce que dañoo nekk xale amoo di gis suñu mag di ci nekk ñuy fawantu ay contact affaire yooyu di bëre ñuy tëggal ay làmb ay. ay warga ay suukar affaire non ay combat ay 200 cent waa ay pot mew yaa ma gën xam comme non ba bis ñew xama rek japp ne war nañ bëri arène comme non rek loolu mo duggal ci làmb ko waa Eric Massar mbooloo mbolo fiñ té fii mo jugul ya xana drog bala wa drog wa ko Kër Massar waaw man ma ngi sama trois combat waaw deux victoire benn défaite ki ma mo wa dan mu tuddati far naa bi fi mu dëkk. waaye ñu ma daan yéen ni ngeen bëggee lu yow. làmb noonu la donc may sarax bi la woon te làmb dem boobu Sidi demee woon nii. sama premier combat waa Iba la woon. bilaay ma ñëw de affaire xale ñëw bëri combat bi yëpp spectacle bilaay ñëw ñàkk. sama combat sama deuxième combat bi si laa daan kii nii Espoir Waalo troisième combat bi si daan John bu Seras. Eh. waaw mais est ce que xale yi nga daan yëpp ay champion la. ñun daanaka la ñu woon tabu carré bëgguma ci lu yomboon booy booy safi laa bëgg. booy lëmbe làmb ji. Hmm. billaay walaay ñoom laa bëgg. ma téye leen benn par benn jàngal leen bëre. mais lan moo tax ngay am problème adversaire yow yaay yow yaay taamu adversaire wala mbëri ñooy taamu. man ne daw ma kenn wax dëgg yàlla sama combat bu jeexee ba tey andil ma fi mat ay quatre quatre komba quatre yëpp yaa xawul ci man. Ah, mais booy ay lañ day jël sa combat dem cibre YouTube bu ñu xoolee combat bi métti ñu delloo avance ay sama nijaay bi ay sama mag yi ci làmb du loolu quoi waaw. làmb moom affaire rek affaire góor yàlla rek waaw bu jeexee jeex na loolu laa gëm quoi. affaire yàlla bu jeexee. non bu jeexee jeex na laaw moom bàyyi ku la yaay dimbali sa bopp gën a yëpp ci kaw la ñuy taxaw. waaw. billaay walaay. mais ki nga mujjee daan looloo tax gars yi di sa avance. mujjee daan waaw combat foofu ma wane sama bopp fu mu mujjee daan combat moom métti woon na métti woon na trop wax dëgg yàlla. metti woon na parce que raag bi moy lolu amna na amna am ba yalla waaw ñu meenu ci ndam damay xeex damay bëri man non non yow ñu ma andal sax gonay gonay dañu sonu de ma du gonay dañu sonu gonay di jabal seen i du ser wa bu lamb amé bay bu su nga gis leen lay wala lu ñu def ko kon bo taxawé da nga wara waaw da nga wara sul tanki barki sayyidina Muhammad te day gën a metti ñu lu yomb suñu aduna non non mais ma ngi doon dégg ñuy wax sa combat ya ki nga xamantene ne yaro baax mais baax tamit est-ce que taw la fa. yaroo moo taw mooy mooy wax deuxième te man pour ñëpp te a bëgg combat bu saf combat jàq ban combat jàq. instant baax na. Eh. billaahi. salaam. nuyu naa la. fay la soxna <clears throat> bilaay ndaanaan la laal gaay non non demewul noonu de sa waay ndaanaan la la bëgg li muy def ñeme entraînement bilaay boole ñamale ñëpp ko may raxam dañuy kaw ak moom di ree lépp soo xamul la naan nii waaw noonu la demee nag noonu la demee bilaay ñu kay ngay ñaana ci kaw ci kanam rek di wax booy ñëw jël avance waaw ñu soxla nañ ko instant bi trop moom waaw yow ñun dañoo faale ko Cissé Langsane booy bu dof. ñoo gën a dof fu bilaay ñoo gën a feebar. Ah, waaw pare nañ pour ñëpp sax baawuñ kenn. kase waaw. Ah. jaajëf salaamaaleykum. waa kuréel bi dañoo dem salaamaaleykum salaamaaleykum. waaw fay nañ la waaw maa ngi sant yàlla bu baax. Ah, waaw am si mbégte rek bilaahi ñun moom dañoo dañoo soxla lii wër na yàlla te dañoo nekk ay ndaw quoi am fi ñaari mbër muy Torompoor ak avenir muy toog te billaay duñ la mës a waaw te ay champion lañ ay jàmbaar lañ waaw defeere waaw loolu yàlla def na ko ma jàpp dama la yërëm eh, jàpp rek jàllale eh. billaahi xaw billaahi ñu duñ yërëm kenn ay xale dañoo xoslu dañoo soxla suñu koñ dañoo bëgg ñëpp dégg ko sa làmb parce que ñun dañoo yàgg a xustu suñu làmb billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa kon bi dañoo yàgg a xustu suñu làmb am fi njool waalo waaw yàlla def mooy loolu ba ñu génn si làmb mais kon bi dañoo yàgg a solo si làmb dañu dégg ak ñu dañuy dañ koy dégg muy trompeur maa ngi seen ginnaaw na ma gën bàyyi xel waaye nag si tiktok bi di wax nii xaa duñu xool nga bàyyi xel bu baax billaahi nga bàyyi xel maa ngi ñëw de waaw ma ne goye bàyyi laa ma xel am micro di wax rek wona yalla ci seen YouTube di leen wër ñuy wax rek yow mëna dé de te boo duggee si bi foofu sañ-sañ ma fay dé sañ-sañ bila ñu Cissé lañ sant sé ay wa wa lañ avenir wa wa la pour wa waala waala eh dafay la wa wa la te ñu war ragal te nangaloon nee na nangaloon nee na do wa do na fit ma yoro wa do na jom du ñu ragal do la amul may wax. kon affaire bi waalo wa la kon nak affaire bi waalo wa la xalé yi am ngeen problème ak yeen dégg naa ki nga xamante moy Fils de Lansana Fils de Lansana xamante gars yi dof bi lañ ko tuddee. dof dafa koy faj bu ñëwee ma faj ko mu wér. yéen sama dof maa gën dof foofu. Eh. billaahi. ngeen def nga gis ko garaaw. billaahi ma du bëreegu de. barki Seydina eh, Mohamed man lu ma yor xayul arène nationale sax billaahi wallaahi du caaxaan damay bëre bay naaw. Eh. billaahi wallaahi. Badou mooy loolu man diggu muus laa yor. <laughs> billaahi wallaahi. président Sane ma rek moom combat bu neex la. barki alxuraan te maa koy corrigé lépp maa koy maay fecc mu neex maay bërëb bërëb maay daan daan bi waaw. même waaw mu tuddati booy bee booy notaire booy notaire baax na eh, kooku moom tapet la. Eh, eh, yow mën la mooy demee nag sama séet laa fa teg. espoir mooy loolu. ñam nañ dama bëgg ñëw jëlee ko revanche. waaw noonu la demee. waaw wala booy notaire. mais keneen ku ñëwaat baax na mel ñaan ñooñu moom ñoom laa gën a soxla instant bi borom deux fois notaire yi boo ko di nga am coow de kooku su ko jàppee mu xam ne lépp dëggal kooku kooku mu nit bëri day puusante te man du fa yàgg du ma yàggal kenn waaw yàgg na fët fët kay mais nga gis nga gis tamit fi mu nekk ni actualité bi xew ci làmb li ñuy wax mbër yi nga xamante ne demoon nañ xool président de la république ñu jóge fa def seen euh, conférence de presse dëkk bi yëpp di leen ngaañ yow lan ngay wax ci loolu en tant que mbër bu ndaw loolu moom rafetlu ma ko billaahi loolu dafa ñaaw parce que ñoom deru làmb lañ yàq quoi parce que ñoom dañoo gorewul rek mais ñoom lu ñu doon tey booy ñoo leen ko def bu leen déggee ba président di jot si ñoom booy ñoo tax waaw kon ñoom lu booy di sonn ak lu booy di dee ñoom loolu dañ cee war a dee mais pas ñuy dem di jëlee xaalis di ko séddoo xam nga di ànd ak ay Macky Sall Macky Sall dafay jógee ñoom ñoo fi des ak booy yi loolu kenn benn mbër rafetlu ko dafa ñaaw barki Seydina Mouhamed waaw loolu dafa ñaaw trop te yàqaleen deru làmb quoi noonu la demee ni balaa ngay def da ngay xalaat billaahi waaw man loolu laa am lu may wax ci loolu quoi. mais en tant que jeune tam nga gis xale yi ni ñu manifesté woo dem di toj Auchan yi di yàq ay place su jàmbur yow ban message ngay lancé nga xamante ne je mais xale yi dañoo sës nag de parce que am na loo xam ne dafa métti. ñoom mais ñoom loolu la ñu mën <laughs> seen doole foofu la yem quoi nit ku ne ak fu sa doole yem rek ñoom yàq boobu loolu ñu am parce que yow nit ay nit yow yaa war di jëlale mais suñu président bi yàlla billaahi non boo boo jiitee da nga war di baale nit ki boo ko ëppee doole da nga yërëm mais nit ki soo ko ëppee doole di ko néewal doole parce que nit ki boo koy dóor boo ko sësee si miir bi ah bu yàggee day fippu de sénégalais noonu la demee nag isaan bi dañoo fippu bu doon làmb daa war a am ak démb mais lépp la moo waaw neex mais la moo ko waral mais kon jàmm si la lépp xaj mais kon ñu jiite ñoom ñoo ñu war a yërëm xam ñu jégal waaw mais pas kay jàpp ay nit di leen néewal doole xam nga jàpp ay say doomu réew di leen ray affaire yooyu nekk lu ñaaw barki Seydina Muhammad waaw ñuy jaale ñëpp ñoo xam ne xam nga ñàkk nañ seen bakkan a yooyu noonu waaw di ñaan président Macky Sall xam nga mu yërëm ndaw ñi xam nga jégal leen ko waa jël si waa jàmm si réew mi Ousmane Sonko ñu may ko jàmm xam moom dëkk la dëkk doomu dëkk bi la non noonu la demee doomu dëkk bi la kon fee am kon nañ ko may mu jël ko waa mais doole moom boo jaayee doole ñeneen jaay doole kon dëkk bi day gën a métti rek waa jàmm si la lépp kon yal na yàlla def jàmm rek mooy loolu avenir ak ay supporter am nan lay dundee ak ñoom ñëw tamit mbooloo mi lay topp dafa doy waar lool mooy supporter moom ñun moom booy ñoom xama amuñu lu dul leen di leen waaw leen di leen neexal xama di leen jaamu di nangu ñuy wax lu nekk di nangu lu ñuy def lu nekk parce que ñoom waaw mooy yoon parce ñun ñii amuñu seen fay parce ñoom bu leen ñàkk ñoom ñoo ñàkk si ñun mais ñun ñàkkuñu si ñoom mm-hmm. xama ñoo jël seen xaalis ko jëndee ay ticket ñoo yàq seen i nelaw xama di yéenu stade du ñu añ yow mbër mi da ngay añ ba suur dugg sa oto bu ndaw ñoom ñu ne si oto yi di lang lamb waaw lamb day jeex nga dugg si oto bu ndaw ñëw ñibbi si reer sa reer bu neex ñoom ñu ne si àll bi yenn saa ñu jàpp leen ramassé ay police xam nga kon ko yow la nga leen mën fay lu dul la yéen iya, mandé saa su nekk soo amee dara nga bokk ak ñoom loo am nga wax leen ko di kaf ak ñoom di reew ak ñoom bañ leen ñotti dara lépp lu la wax rek nga nangu ko te xam kan ne ñoom liggéey na lu ëpp loolu noonu man loolu loolu laa jàppee booy billaahi nga dégg tam mbëri des fois ñuy wax CNG bi ak arbitre yi lan ngay lancer message boobu ndax des fois arbitre ñu yàq lamb de leer bi mbëri ndaw moom nga xamante ne da ngeen bàyyi leen booy yi ngeen di jàpp di leen dóor ci stade bi booy saa yu ma jëlijee saa yu ma jëlijee mbër rek day jooytu loolu saa yu ma jëlijee loolu ah, sama ngaa mi fii dóor nañ ma fi ba turi ñu rey ma baal lu ngay def waay. sama ngaa dama doon yoole rek taxaw si kanamu stade bi ak yow noonu mu ne ma ndir. <laughs> te loolu du yoon lu war a mën a ñàkk la waaw. waaye seen nag mafia pétrole bi ñu ngi nii si ginnaaw ñu sóoraale. loolu noonu yëpp waaw. billaahi bon génnuñu sa manifestation bi fii yëpp dañ ko waroon taal eh. ndax suñu président bi doxalul lu dul yoon voilà ñun nag waaw ceene eh. saa lu ma dégg nii nii lu garaaw la te lee jàpp rek defeere la gaan ah, comme defeere nii gaan waaw waaw te duñ la ate ah. ñu jënd glace toog eh. jàmm gën lépp bilaahi ayca nee nañu jënd glace toog parce que booy nee nañ dañuy bañ dañoo ragal ay ayca mbër mi lu muy tàggatoo ak li muy sant gërëm leen. waaw di santaar rek di gërëmaan ñëpp surtout waa koñ bi di leen sant bu baax a baax wax nag am na combat am na luy xeeñ quoi am na combat boo xam ne instant bi ñu koy wax muy le 6 bi quoi. le 6 bi incha allah ñaan eh, eh, eh, mu confirmer mais nag waaw matu na ma ko lay jël nag yow xam nga samay adresse mais yow xam na lo jaaxal. boy jël len ki ki boy la tollul len xool leen ko nu tuté ni nek la tax jël len ko luma 10 adversaire luma 10 10 10 adversaire kuñ ko jox ngeen da lan ngeen di dawe ki <laughs> non la dawe gars yi ma jël fo ak ñom di laaj ma batoog ñoom yaa ma gëna xam koñ koñ bi dañu wara dégg dañu soxlo ko li lay wax rek bi sa su lamb waru def di parce que koñ bi koñu lamb la dañuy dundal làmb barki Seydina Mohamed waaw man may santaat rek di gërëmaat di sant El waaw sama gante mu ne Espagne sama grand El maa ngay sant bu baax a baax daf may jàppale saa su nekk billaay walaay saa su ne day bëgg mayam combat bu su ne daf may woo avenir sa combat taxaw na wala yaakaar nañu dox affaire yooyu noonu waaw ah, te moom daa taxaw pour jàppale ma te te yàgg na say jàpp ma ngay sant bu baax a baax a baax waaw di ko wax mu gën a jàpp rek di sant sama grand Walia ah. Walia maa ngay sant bu baax moom it daf may jàppale ci lu bëri waaw di ko sant bu baax di sant Alaaji Gaye am ak Xaalim Gaye di leen sant ñoom ñëpp di bëggee Pape Valdo ah sama gaan sama copain eh sama doom day kenn du moom bu mu ñëwee ba tey lépp daan naa xam di sant Leuz mii nii xam nga di ko gërëm bu baax baax di sant waa Ndaari nag waaw fii daa bëri ay mafia yaa ma a xam waa Ndaari ah. waaw Ndaari soulagé ak waa pétrole bi xam nga waa CFA bi ak waa Baye Fall yi fii mooy loolu fii ñëpp koñ bi lépp benn la yaa ma gën a xam ñëpp bokk benn yéene kon ñu dañoo war di bëre dañu war a am ay bis yu mag gars di si jàpp di woo autorité yëpp dëkk Massar woo waa maire Massar moom yaa ma ko na xam ñu ya, waxu ñay waxam ñu bu boy la ñam amu ñu kenn barki sayyidna Mohamed waaw ñun ku ñu ku ñu jàppale ba tey suba dañu bëgg a mu teela ñu ngi jàppale suñu bop ñu ngi sant yalla waaw ñun lamb moo ñu ñor dañu bëgg amay combat inshallah di dem diko lijeenti xama yalla dañu sutural waaw mo la def ay di sant nañ ñep gërëm nañ ñep nii rek lañ ko defee sa suñu seen émission mbeur ak cumukaay mbër foo mënti ne rek ñu la fa fekk nak lim wax rek man nak ànduma ak benn mbër bu mag maa ngi ci mbëri ndaw yi mbëri mag yi du ngeen ay tus du ngeen ay dara gars yi nee nañ da ngeen a trahir mafia bi da ngeen a trahir mafia bi di gërëmaat encore une fois bu baax a baax a baax ki nga xamante ne mooy Pape Valdo vraiment encore une maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax waaye Bib Diop duma ko fàtte bu baax a baax a baax a baax di wax Ibra Diouf borom Mbéyaan production tëggaloo xale bi utal ko adversaire ah ci le 6 bi ndax mafia bi namm nañ ko mafia CFA bi mafia pétrole bi. ah ak mafia mandaari bi ak mafia ban ndaari bi ak mafia Baye Fall yi ah ak mafia ban mafia néegu mafia néegu maara bi ah lépp ci biir sant na leen gërëm naa leen bu baax a baax a baax a ah mafia Fambaye bi mafia Adama Sarr ah